rey nañ ay nag yu bëri macha allah li toll ak juróom-ñaari nag ak ci gileem. ak i xar ak lépp seen jëmm yi rek a tax ak sant sargal Cheikh Modou Kara Ndoye dañoo a bëri nañu yegg ca dali ku ci ne fa nga nekk xéewale dana la fa fekk ñu waajaat rassemblé wu ñëw sant Cheikh Ahmadou Kara ba caaro yeeg li ko wër ak banlieue ñëpp xam ni Sénégal àdduna ñëpp xam ni sant nañ sargal nañ ko 22 heures 22 dana fekk ñu reer 22 heures la ñuy reer jënd ci baax yaa ngi fi waaw Moustapha Mbaye mooy tijji zikarkat yaa ngi fi ñëpp ku ci ne danga nga barkeelu sëñ Xaadim Kebe mi ngi fi jànkatu xasida baas bii lañ koy amale incha allah nag gaayum teel teew ak yaram teggin te ni ko sëriñ bi bëggee rek bu kenn dikkaalee loo xam ni sëriñ bi gërëmu ndax bëccëg gi dana neex contrôlé waaye guddi gi nag ñi gam ak ñi dem duñu bokk comme nag ñun ñoo mën a defar suñu événement Diakra ñëw na bégal nañu yàlla na fi yàgg lool te ànd rek lañ ko mën a sagalee sagalee ko gox bi mooy bu ko gox bu ñu kenn dégg ci loo xam ni naka su la bu ñu xeex bu ñu xuloo bu ñu laal lu ñuy tere zone bi ñu bi ñu nekk zone bi ñu nekk zone bu xaw a dangereux la zone rouge la boo xam ni dafa dangereux nañ ko moytu Serigne Axma wax na ko lépp loo xam ni luy tàkk la lu ñuy taal moo xam pétard la wala léeg-léeg nit jóge fële ci àll ba di tux te na bëggul naan ci njaboot gi waaye nañ ko wax ni ko na dand zone bi yépp waaw ndax fii Cheikh Ahmadou Kara dañ ko bëgg xamuñu nuñ koy def moo tax bërëb bi jàppandi kon nañ ko fi sagal damay bañ mu dem rek ku nekk doon sa waaw ci ndigal Seydina Ousmane borom baax nee na ñu yeggaat ci dal yi waxtaanee mbégte mi dund ko fa ñëwaat nag fas yéene fanaane sant Cheikh Modou Kara Nourine waaw Mbacke waaw dañu ñëw dañu la bëgg a laaj ci bis bi rek gannaaw bi nga xamante ni sa waajur yu góor yëkkale bis bi bu baax mu jël lépp teg ko sa loxo bis bi lan ngay Mustafa alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba suñu yaakaar teg ëllëg ñaanal Cheikh fi lool tànd ak yéen ñaanal Serigne Bassirou Mbacke xalifa Cheikh Ibra Fati suñu borom yàggal ko fi xam ne lépp mooma danu koy sant ndax ku am tawféex ñu di la liggéeyloo da nga war a doolee sant bu baax danoo bëgg a dimbale rek waaw danoo bëgg a dimbale rek bëgg noo jàngalaat ak taalu bi waaye ñun danoo moom biir moom nu biti waaw bu soxla woon sunu nu yi léegi rek noppi nan ngir joxe ko kon nag xanaa fas yéene soobu ci liggéey bi rek. takkaat sunu laxasaay fas yéene doon i taalibe fas yéene doon ay taalibe waaw Mbacke dégg nga sa waajur wu góor euh, li nga xamante ni tamit dégg na ko ndaw ñi yaa ngi direct yaa lay ziar bu baax di la jox sa ñu gis ni bis bi Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni da ko doon def sa jom Maris Ndiaye tey mu jagleel la ko tey sa digganteeg sa waajur. waaw sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam santaat Cheikh Amadou Kara wér nag wax dëgg yàlla lii sag sag la sag la ci ndawi Sénégal sag la ci ndawi àdduna Cheikh Modou Kara Noreyni Sénégal mën ñu ko fay yàlla rek ko mën a fay sëriñ bi ndax 31 décembre ndaw ñi daan nañ xalaat leneen lu di ñëw ci mbirum yàlla ndaw loo mës a gis mu sañse ba jekk jàppal ne ca Iblis la jëm waaye nag mu xeex Iblis ba man ko ndax man gum ko man mooy firndeel euh, jataay bi mooy firndeel bis bi ku fi xool ay junni junni ñu jóge fu ne ci àdduna bi ñëw teew ñu jóge bitim réew ñu jóge fu ne ñëw teew yi yàlla jëm ba bayug bayug sunu borom rek ko mën a fay kon nag ñi ngi sant mboolem koo xam ne teew nga di ñaanalaat suñu yaakaar Cheikh Modou Kara mu yàgg fi tëwër fas yéene takkaat suñu laxasaay rek doon ay donga doon ay yoo xam ne dañuy sóobu ci rek xëy rek te duñ xam a ndax moom ba mu liggéey ba muy liggéey Serigne ba tey mësta tekki laxasaayam mësta tàyyi mësta yokkat mësta sonn kon ñun bu ñu goree ñun ñuy tudd ñuy tudd di ko tudd jaar ci yooyu tànk rek moo ñu war waaw yéen nag di leen sant yéen presse bi ndax seen taxawaay rafet na boobaak léegi nelawoo leen yéen loo leen Euh, bi depuis CLD bi ba tey ngeen bàyyi seen lépp di ànd ak ñun événement bi kon ñu leen a fay dañ leen a bàyyi suñu borom mu fayal hmm. ñu leen. gis ne dafa jaar ndaw ñi fu ne. Hmm. ba tey ñu toll si jamonoy alxadimiya. waaw day wane ne rek ndam feeñ na rek ndax jaaral ndaw ñi fu ne euh, wax dëgg yàlla ndokk yàlla ba fam jaar ñoom di dëgg. ndax nag dëgg rek ay mujj. Hmm. waaw génne leen ci lëndëm indi leen ci leer. fexe bañ ma nekk seen borom xiirte leen ci njub. te njub rek am solo. sëñ Tuubaa dañuy tallaahi la seen faxu cheikh indax loolu ram si xayru huda man sëñ Tuubaa maa ngi waat ni doomu aadama duggee ci bàmmeelam euh, lenn rek ko ko jariñ mooy njub bu mu ci àdduna te njub nag la Cheikh mu nekk ci yàlla koo ci lamb poosam xasida nga ji fekk wala wala boo ko masaana lamb sawaan ma kon nag Cheikh Ahmadou Kara kenn mënu ko fay waaw am na président bu ko mas ni ko yow réew mi mënuñu laa fay ndax li ngay def état la waroon jël ñu defar ko ba mu baax man ak société bi te ñun liñ man mooy képp ku dëng ñu jël la tëj la ci kaso bi mën ngaa génn baax mën ngaa génn bon kon te moom da lay jël de fóot la ba nga mën sa bopp mën nekk sa borom mën a sa njaboot mën a service réew kon kooku kenn mënu koo fay kon ñun li ñu war rek mooy gën a góorgóorlu ci jox ko bopp ak di ko déglu fu mu nu joxoon muy foofa ndax bu ko ndawi réew mi yëpp dégloo rek njiitu réew mi déglu ko yaakaar naa dana jëmee réew mi foofa foofu ci ndawi réew mi gis nga ne ndawi réew mi léegi sànni na ci kàddu tamit jox ci benn message ndax dañoo sëdd lu léegi lu bëri ci réseaux yi ak ñàkk teggin gi ak ñàkk warma ci kilifa yi da cee bëri loolu loolu sëñ bi taxaw na ci seetlu bañ jàngat nga ciy def. waaw xam nga thème bi laay dikk ba nëb. Mhm. thème mu 31 décembre bi ren mooy enseignement ak éducation. Mhm. xam-xam ak yare. Mhm. xam-xam euh, mënul ñàkk ndax suñ tubaab dañuy ah fa ma naxeeku maa ni taxandumi fa naxoo ila dalal yéen tamit képp ku dox sa digg ak sàkk xam-xam rek nee na ci sànq la la jëm ak yow. ndaw war naa jéem a góorgóorlu ba xam Cheikh Moudou Kara wax ne ndaw li war. ci waajuram mooy bala mu koo dugal muy jàngi école wala muy dugg mu jàng ko muy dugal jàng leneen na ko yóbbu mu jàngi alxuraan ndax alxuraan bu jiitoo ci biir xolam da koy dimbale ba leer ne ci moom da koy dimbale leer leeralal ko yoonam ba bu bëggee xencu yeneen xam-xam yi sax da ci am jàppandal bu baax a baax nee na bu alxuraan jooju weesoo ñu jàppale ko ba mu jëm a xam njàngalim Serigne Touba njàngalim Serigne Touba mooy naka lay naka naka lay naka lay naka lay dundee ak ay waajuram naka lay leen di wegee ndax léegi gis nga ñoo xam ne dañuy saaga seen waajur gis nga seen waajur day wax ñu teg ci baat gis ñoo xam ne bu seen i waajur di wax euh, daanaka dañuy jàppe ni seen morom ay wax ak ñoom te loolu euh, dafa jot ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel te xam ni waajur du morom wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan Sëriñ Tuubaa ne wa birra waalidayka warfuq bihimaa wa kun mubaadiran ilaa amrihima wantahi an jumlati maa qad nahaaka anhu li rabbika fayazdaada ulaaka nee na yow de li la war yow jullit bi mooy nga fexe ba fonk say waajur leen yërëm leen ñeewante leen buñ la digalee nga gaaw ci te buñ la fekk ci luñ lay tere loolu la Cheikh Modou Kara di jàngale yow miy jàng itam moo xam université nga nekk foo mën a jàng sam jàng na la la yitteel parce que Sëñ Tuubaa nee war di demee ab sag ak di góorgóorlu di muñ te xam ne xam-xam yombut ba suñu borom jox la ko waaye waroo di jàmbat ak di sànni xeer ak loolu na nga di ci dugg kon nag ñàkki teggin gi nga xam ne seetlu nañ ko ci réew mi Sëñ Tuubaa Cheikh Modou mi ngi wax ne ndaw ñi nañ dellu si waat seen xel ndax réew mu sëñ Tuubaa nekk yaakaar naa ni war nañ leen na naw suñuy dëkkandoo suñuy suñuy voisin war nañoo dëkk war nañoo naw waaye war ñu ñoo jëppi kon nañu moytu te xam ne réew mu sëñ Tuubaa moom du Mamadou taxa yàlla na fi yàgg lool te ànd di jéggal kàddu yi jërëjëf asalaamaaleykum baax doomu aadama xam ko mm. gis ne diwaane Sirkul Jawaaxir fi axbaari saraayir mm. nga xam ñoom nga àndal ci liggéey bi te tamit sëriñ bi teg la ci kaw mm. am lu ma lancé message léegi nii ne ñëpp nga xam ñoo la féete mag tey yaay seen soldat nañ la jëmmi kilifa nañ la jëmmi tey ji nekk ci terrain bi di liggéey ñoom ñu gis ne bi sëriñ bi dénkee diwaan bi ba tey mu mel ni 1995 da ko tàmbalee di ko wéyal ba tey di ñu war a dugg ci ban message diwaan bi def ànd koog yow ci tournée nationale ak internationale bi nga def. waaw diwaan moom xam nga li ko tax a jóg mooy œuvre pour Dieu à travers les hommes mm. liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi la Serigne Fall waxoon fexe ba doomu aadama yi xam ne adduna bii ñëwuñu fi ngir ay fo wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'budun loolu mooy liggéeyu diwaan defar doomu aadama ndax réew mi dañuy defar pont yi di defar autoroute yi di defar usines yi waaye duñ defar nit ñi te boo defaree euh, réew mi te defaroo nit ñi nit ñee ko yàqat waaye boo defaree nit ñi nag ba ñu xam seen valeur xam seen valeur réew xam ni bëgg sa réew ci jàmm yàlla bokk yaakaar naa duñ fooy seen réew duñ ko caaxaane loolu mooy réalisation diwaan ji gën a rëy mooy defar doomu aadama te loolu moo tax ñëpp nag kon nag moom Cheikh Ahmadou Kara mun ñu ko fay wax dëgg yàlla ndax li tëwoon ñëpp nag moom la def mooy di defar doomu aadama yi ne nag a na ay projet yu nekkaat kanam itam ngir eh, waa yooyu bu ñu ci yeggee dañ amaat yeneen jataay yoo xam ne ci lañ koy yaatalee waaye yéen waa presse bi ñu ànd ko yéen incha allah taala